père ñu ngi lay nuyu tey ñu ñu ñëwaat fii ci beneen président boo xamante ni ku bees la ci làmb muy Bira Sène euh, ginnaaw bi nga xamante ne directeur Alioune Sarr jóge na fi ban gis-gis nga ci ak ban yëg-yëg nga ci am. gis-gis bi mooy du ko bees yàgg na ci làmb ji ndax moo doon président CRG bu Kaolack hmm. maanaam continuité lay doon hmm. mais xalaatoon naa it changement bu dee am du bëri hmm. ndax saison bi ni daggee daaw ci pleine saison la pandémie bi dal ci woon koo ñu am ay combat yu newoon ci ci di ñëw kon doo ministre bi du ñemee jël ay risques. Euh, loo parce que boo andee gan te xamul li xew am na mbër yoo xam ne seen i contrat ma nga CNG seen i licence ma nga CNG pandémie moo dal ci seen kaw ñu arrêté saison bi kon xalaatuma woon mu jël gan koo xam ne du xam dara ci làmb kon xalaatoo naa ne ki ñuy jël day ne ci milieu làmb mais li am solo sax du xam gi li am solo mooy nañ leen jàppale ndax même boo xamee te jàppalewuñ doo dem kon jël ku xamul sax te jàppale ko moo gën mais li làmb soxla mooy ñu jàppale leen au moins mbër yi am ay contrat mën a tàggoo contrat yi dem witi leneen promoteurs yi investir seen xaalis pandémie bi dal seen kaw ñu teewul ñu tëggaat ay làmb ñoomit ñu mën a libéré wu euh, dem wite leneen kon daal de leen di ñaanal ñu réussir ndax nag jàmbaar amul ku yàlla dimbale rek moo am kon ñu ngi seen ginnaaw di leen jàppale yàlla ñu réussir seen mission. amiin yaa rabbal mais ñëpp bàkk nañ ni euh, docteur Alioune Sarr am na fu mu fekk làmb am na fu mu ko yóbbu tey ñu seen tu ci bira seen plus ko loolu euh, Père Max Mbargane nekk ci biir. Euh, nekk ci biir membre CNG bi lan mooy rôle am foofu dëgg-dëgg. waaw xam nga ñun ay personnes ressources lañ ndax ñoom man même bu ñu ma jëlutoon dama yor écurie di reporter di dund làmb di directeur technique man même bu ñu ma jëlutoon ci euh, euh, groupe CNG bi damay ko ndax man damay dund làmb damay gëm na sax ñi ne ci bopp bi man maa a doon acteur ndax man ngi ci nekkul maa ci moo tax toujours damay bëgg man ni ñi jiboo bu ko defee làmb jëm ca kanam ndax xale yi dañoo sonn ku ci ne di rêvé doon champion teral say wayjur moo tax man bëgguma làmb am problème bu ma soñ ci kanam rek lay jëm waaw combat Siteu Papa Sow waaw noonu ñu ngi ci ñu ngi ci xam nga yow pleine saison lañ ko arrêté te boobu waajoon te dañuy bëgg Siteu Papa Sow libéré wu dem witi leneen. comme ñeneen mbër yi amoon avance. ku leen fëggoon suba suba suba. non pare nañu bu ñu woon dimanche sax pare nañu. te dañuy am yaakaar. jërëjëf jërëjëf xewoon.